mbokki jullit yi ginnaaw bu ñu sante yàlla buur bi subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm waaye di sàkku ñaan ci yéen di leen baalu xaq di leen baal xaq tey ñaan yàlla suñ borom subhaanahu wa taala mu boole nu jégal suñu xaq yu dox suñu digganteek moom ak suñuy moroomi jàmm tey nag ñu fas yéene dellusiwaat ak yéen ci seen youtube bi le meilleur secret àndiwaat leen beneen secret bu am solo muy ko xamne da fay jàng te bëgg lu mu jàng mokkal ko insha allah taala lo xamne da fay neexal xelu dom adama mo xam ngay def ay examen mo xam ngay jàng alquran karim wala ngay jàng école français te bëgg examen bo def yàlla defal la ci ndam composition bo def yàlla defal la ci ndam insha allah kiss baa ngi nii kiis la goo xam ne bésu àllarba lañu koy bind bésu àllarba lañu koy bind moom ngeen di gis noonu ku bëgg a mokkal alquraanu karim wala nga bëgg lépp loo jàng nga mokkal ko lii ngay bind def ko saafara boole kook ndoxum teen wala nga boole kook ndoxum géej walla soo amul yooyu yëpp nga boole ko ak ndoxum taw bind ko bésub àllarba naan ko bésu alxamis moom nag lii la rabbi zidni ilman juróom-ñaari yoon ma baamuwaat ko rabbi zidni ilman juróom-ñaari yoon wa allamnahu min laduna ilman juróom-ñaari yoon arrahmaanu allama alquran xalaqal insaana allamahu albayaana juróom-ñaari yoon moom itam sept fois wala tamudanna aynayka ba ca wal xaqibatu lil taqwa moom itam sept fois fa fahamnaaha suleymaana ba ca mujjug aaya ba moom itam sept fois sa nuqri'uka fala tansa moom itam sept fois iqra ya'lam moom itam sept fois moom ngay bind bésu àllarba boole ko ndoxum teen wala ndoxum géej wala ndoxum taw naan ko bésu alxamis insha allahu taala ku ko def suñu borom tabaaraka wa taala dina la defal tawfiq dimbali la ba lépp loo jàng rek mu mokk incha allahu taala di leen wax ne bu leen fàttee abonné ci sunu chaîne YouTube ndax mooy tax bépp vidéo bu ñu dugal rek ngeen mën ko jot incha allahu taala kon loolu lañ leen andi woon tey bu fekkee vidéo bi neex na leen tam ñoo ngi ñaan ngeen zame vidéo bi ngeen zame vidéo bi bu baax incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah